Cheikh yow mhm. dañ la miin ci réseaux sociaux yi. Mhm. waaw Sénégal bari na lu fi xew daan nga toll fee di ci wax. bitim réew mais bi nga ñibbiseeg léegi da nga na tekk lan moo ko waral. waaw euh, wax nga dëgg grand dama nekkoon ci àll bi di ñaxtu comme ni mu baree ni mu dalee ñu bari ci réew bi ndax ñàkk gis seen bopp gu ñàkk gis seen bopp ci réew mi ma nekkoon Amérique di def samay coupure vidéo di balancer ci internet bi Sa Ndiogou mu ngi koy wax ñu bari jàppee moo woon un donneur de leçon pourtant c'était juste une question de sensibilisation ma jàpp ne nag dañu toll ci phase phase implication ci mode de paradigme bi réew mi war a jël pour li ma dal man dal ci li ëpp ci sénégalais yi muy dund dund gu déggan jóg ci réew mi loolu moom moo waral ma ñëw bi ma ñëwee nag dafa tombeek pënd ba wuri te olof yàlla olof Ndiaye nee na buy taw kenn du fubéré moo tax ma bëgg a bàyyi ba taw bi sawet ma doog a commencé fubéré. non est-ce que du ne tey la gën a tooy. Hmm? pënd bu waaw yow bi nga fekk réew mi léegi la wax waaw mais wax jot na ñi war a wax war nañoo wax mais lépp day dépendre ci yéen ñi nga xam ne yéen a yore média yu Sénégal parce que damay toog di seetaan xam nga ñun ñu nekk bitim réew ñun ñoo ëpp jot ñu nekk ci réew mi ñun ñooy mën a xam ñooy mën a xam différentes émissions audience yi am. Mm. ak xeetu doomu aadama yi war di wax mais les mêmes waxkat ngeen di invité ñuy wax. bu fekkente ni loolu yéen it jàppale ngeen ñu ci ñi nga xam ne jël nañ seen i responsabilité gelé seen ay activité pour ñibbisi pour réew mi jëm ca kanam ngeen jox leen chance comme ni ngeen ko defee d'ailleurs ma leen ciy remercier jaakaar naa dinañ commencer même balaa taw bi sawet ñibbi ñibbisi bi définitivement la wala da nga ñëw rek pour vacances yu delluwaat waa ñibbisi yi fii man dëkkuma feneen fii laa dëkk Sénégal sama réew laa ñëw hmm. voilà donc euh, mën naa nekk définitivement mën naa nekk tamit temporellement si vous voulez de toute façon fas yéeneetuma dem fenn ci àdduna bi di fa def au delà de deux semaines su ma ko suñu borom dimbalee ndax damaa jàpp ni bokk naa ci ñi war a tabax réew mi loolu lu ma sentir la daal lu ne ci man. mais est-ce que li la doon wax loo tey jii ñu wax ci àll kàlla gi mooy. Mhm. nekk nga bitim réew di wax lu la neex. Mhm. wala li nga bëgg a wax. Mhm. ñibbisi si réew mi xam ne feedu fii. nga ñëw ne sama kuddu jàmm lay ràcc. dem toog jàpp sa njàmbur parce que li ngay wax bu doon ni ngëm-ngëm la ak engagement. boo ñëwee da nga ciy kon ne di ci ne. mais boobu da nga jàpp ni fee nga ko gën a mën a waxee mais bi nga ñibbisee na tekk tekk gi ragal la wala lu. non su ma jàggatee sa wax da nga may xiirtal da nga bëgg a xiirtal fit wala nga bëgg ma ko jiiñ wala nga bëgg maa iri ci ragal ñaar yooyu di ci benn damaa tolloon étape boo xam ne dama doon décortiquer par rapport ak information yi ma am ci li tax gisuma sama réew di ko décortiquer te mosuma dégg ku ko wax ci réew mi de 1960 à nos jours. dégg naa kuy wax ci diine di ci wax lu ne kuy wax ci politique di ci wax lu ne mais man li may dund sama diggante ak sama réew mosuma gis ku ma étaleel information yi ma toog lu yàgg dégg déggu ko moo tax ma ni gisuma ku ma ci gën a jekk pour ma wax ko ndax mën naa ko xam wax yow lan nga lan li li nga may laaj nii exemple par exemple yaa ngi ma wax sànq avant ñu commencé émission bi nga ni ma wala Sandiogou moo moom ko wax lan moo indi titre ambassadeur bi waaw ambassadeur bi maa ko autoproclamé wu maa jël samay responsabilité autoproclamé wu ambassadeur de la jeunesse sénégalaise muy jeunesse boo xam ni plusieurs générations dañuy traverser ay traumatisme yoo xam ne dafa nekk ci réew mi nekk véritable bloca blocage yi nga xam ni moo bloqué développement wu réew mi li ëpp ci jeunesse sénégalaise ci époque bu mënti doon ñoom ñooy subir conséquence bi ba tey mosuma dégg ku ci wax donc ñun ñi am information yi moom laay wax de base yi ñun ñoo ko war a mën a étaler loolu tamit ma toog déglu gisuma ko ci wax moo tax ma jël sama responsabilité pour ñëw pour bokk ci ñi nga xam ne dañ koy teg ci kaw table ji pour ñu mën ñoo tenir compte ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ëpp ay jafe-jafe ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. ku ci wax comment ci loo ma laaj rek. loo bëgg loo jàpp ci ndaw ñi. Mm-hmm. da dama gis ni yow France jeune bi nga bokk. mosoo dégg. li ñu seq. ku ci wax te fii. muy ñun di ku mën ci doon. Mhm. mais li jeunesse sénégalaise di dund mais ñi koy wax. non am na lu ma déggul. mooy la par exemple mën naa autoproclamer wu ambassadeur de la jeunesse du titre bu honorifique titre bu jafe la parce que mënoon na ma autoproclamer wu ambassadeur des analphabètes du Sénégal dans laquelle j'en fais partie. Mhm. et pourtant ci réew mi laa juddoo yoroo fi màgg fi jànguma j'ai pas eu la chance de bénéficier de l'éducation sénégalaise c'est pas de ñu ngi wax conséquence bi mais cause yi mosuma gis ku ko wax j'aurais dû mettre m'autoproclamer ambassadeur des enfants de la rue dans laquelle j'ai passé la moitié de ma vie ba tey mu ngi am am vingt-et-unième siècle soo génnee bi may ñëw feu rouge boo romb di nga gis juróom-ñaar fukki xale yu taxaw am juróom-ñaari at yor ay pot di yelwaan mm-hmm. avec un pays boo xam ni bëgg nañu mu développer loolu ba tey waxaguñu cause bi xëy na ñi ñi war a wax nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoom war a wax fi ñu jëmee réew mi kenn waxagu ci loolu nag laa jël samay responsabilité pour ñëw pour wax ko pour ñu tenir ñu compte am réew mënul développé ci àdduna te préparé wuñu à la base nit ñi te loolu moom moo manqué ci réew mi mhm. waaw mooy la capital humain voilà capital humain boobu mais ci nga fekk nit ñi ñu ci wax peut-être yow nga waroon wax ñu ci war a jëf mhm. mais li ngay joytu nii mais joytu nañ ko ba sonn est-ce que tey jii danga waroon wax ñi ci war a jëf. Mhm. mais waratoo wax ñi ci war a wax. effectivement Sénégal kenn ku ne yaa ngi wax ci jafe-jafe yi mais xam nga nit ku nekk booy wax ci jafe-jafe mbir information yi nga ci am rek nga mën a wax. information yi nga ci sa biir bopp moom ngay xalaatee moom rek nga mën a relayer loolu maa ngi dégg ñëpp di def ay effort man pour man dafa faible parce que ba tey mooy li ma la ci conséquence la ñuy taxaw ci problème yi réew mi yëpp mais cause yi kenn du ko vérité. wax nu ko moom laa lay expliquer. Mhm. c'est-à-dire Sénégal dafa créer ñaari sénégalais ñaari xale yu am juróom-ñaari at kenn ki am chance su juddoo ci waajur yu teel comprendre ñu koy yee 6 heures du matin moom ak rakam wala ñaar lañ ñett wala kenn anyway di ko sang ba mu set solal ko yére yu set jox ko sac à dos jox ko benn xaaju mburu ak ardoise ak ay kay ci biir sac bi dugal ko ci oto wala bon moo koy yóbbu wala ay parents wala école bi soriwut ñu mu dox di dem ci école boo xam ni dañ koy préparer préparation de investissement humain muy école française bi mu war fa dem bu génnee seen bundu ko rek dina daje ku tolloog moom âge fajar gi yëpp da koy yalwal mi ngi ci biir pot bu mu yor ni bokk ci mbedd mi même xale bi benn potu ndagg la ci yore yor ñaari miskit ak benn sondel ak benn cinquante franc boo xam ni sëriñ ba moom la ko sos beneen investissement la c'est-à-dire Sénégal moo raté dès le départ dafa juddu au lieu ñu teg des institutions un état créer des citoyens des patriotes sénégalais mu am benn fatalité boo xam ne du destin Sénégal da koy dund par rapport ak mauvaise interprétation yi ñu am ci suñu ay religion am ñoo xam ne dañoo téye politique bi am ñu téye diine ji kenn ku ne créer ce centre de formation jusqu'à présent ñi nga xam ne bénéficier dawuñu éducation boobu du Sénégal ñoom ñoo téye réew mi ñoom ñoo créer problème yi ñoom ñooy toog di wax te képp ku am chance su teg sa tànk ci biir école sénégalaise mënoo wax lu décanté ñun suñu ay problème parce que xamu leen ko donc loolu moom mooy res mooy li ma la wax ne la déglu naa de 1960 à nos jours musuma dégg ko décortiquer moo tax ma jël sama ay responsabilité su ma ñëwee ci cursus yu ñaari doomu aadama yi ñii kii day dem ci école bi commencé de primaire à université am ci ñoo xam ni peut-être manque de moyens mooy tax du ñu continuer seen éducation ba mu ba fa mu dem mais lu ci bon bon am na loo xam ni Sénégal teggil na leen ko mooy lan bu ñu dajeeg man ci benn aéroport ñu jox ñu fiche pour ñu remplir suñu tur. cinq minutes avant l'atterrissage atterrissage avion bi moom bu wàccee rek day remplir jubali ci guichet man damay comaati ci aéroport bi di ut ku ma bindal sama tur kooku Sénégal moom moo ñu différencier muy deux poids deux ñoo ñooñu ci seen biir dañuy continuer topp seenum njàng topp seen ay études ñooy mujjee diriger mi quel que soit alpha ak lu mën di xew ñoom ñoo ñuy jiitee mu am ay techniciens de fait en un contexte doré am ay spécialistes ñoom ñoo ñuy faj lu fi amu ko su néew ci lëf ci dem ci ci ci développement ci réew mi ci ñoom la jóge ñun ñi nga xam ne ñoo jógee ci beneen cursus bi nous sommes des pièces maîtresses de la machine qui détruit ce pays et puis mu créé waat ay lobby ci seen biir kenn ku ne jóg nag làqatu ci diine ji créé sa benn fragmentation ci biir jël nit ñi di leen zombifier ñu installé fii des temples de l'ignorance des laboratoires de lavage de cerveau et des cabinets d'hypnose c'est ça qui a bloqué le développement de notre pays il c'est ça ma responsabilité dans ce pays. macha allah Cheikh Thiam euh, <laughs> ndaanaan la euh, dégg naa ko expliqué na yu bari waaw mais Cheikh yow est-ce que euh, problème bi fi nga ko jëmale est-ce que foofu la parce que paree na saay am na ñoo xamante ne bi am na école publique boo xamante ne bi fayoo dara defoo dara am na ñu bari ñoo xamante ne bi tey seeni wayjur jur kiiwuñu woon mais am na ñoo xam ne seeni jur ñoo préféré daara. lu tax loolu euh, ñëwoo ci gis-gis boobu ci parent bi nga xamante ni moo ne man sama doom du jàng école am na am na koo xam ni moom daf ne day jël doomam dugal ko école. Mhm. léegi lu tax nga wax ne euh, état. directement ba tey tudduma fi état sa diagnostic mooy li ma la wax sa niveau yow information yi nga am ci ma poser question mais je vais approfondir man li ma wax. allez yi gis nga une. waaw d'accord danaa gën danaa gën a bëgg maa ngi jégalu danaa gën bëgg a leeral mm-hmm. li may wax mm-hmm. gis nga teeñ mm-hmm. ci biir bopp jàmbur lañ ko teeñ lañ ko nen tojtal ko fa dereti jàmbur rek lay dundee jàpp na ni li mu nekk lépp dëgg la ñàkk xam la société bi moo wurta nangu loolu yéen ñëpp tukki ngeen ñii dem Amérique ñii dem France Amérique doom ji yaa koy ëmb juróom-ñeenti weer wasin ko deret ju bari nga tuur ko ñu dagg cordon ombilical bi nga taf ko ñu taf ko ci sa dënn nga jooy ngir mbégte mais pare nga ci xale bi yaa jur mais moomoo ko parce que bi ngay tëdd ñu lay réewli sage-femme yooyu noonu énergie bi ñu dépensé ak li ñu def ci yow xale bi bu nekkee prématuré mu am ay couveuse ay yoo xam ne tubaab bi moo xalaat ba mën ko mottali bu juddoo ci juróom benn weer dinañ ko aar ba du faatu ay doomu aadama ñoo ko def xale bi dañ ko war a préparer ci lu amal njariñ réew mi daara soo ko tuddee tu fais allusion à une communauté daara ça concerne pas les sénégalais ça concerne les musulmans war a teg loo xam képp ku juddi ci réew mi ak loo mën di mel ci àdduna dinañ la ci loo xam ne da ngay amal donc loolu moom mooy débat bi le véritable problème c' nit ñi fii ci ay conséquences la ñuy tax la ñuy taxaw di wax mais cause duñ ko waxtaanee ci réew mi donc cause yooyu nag man moom ñu di sëñ bi. waaw mais c' li nga expliqué nii. Mhm. Euh, yi da ma jox benn société boo xam ni dafa am nu muy doxe mhm. mais am na ay faay société bi nga xam ni moom nga may wax. Mhm. Euh, maanaam drogué yi fa la ëppee. criminels yi fa la ëppee. et pourtant ñooñ ñëpp société bi ñooy ñi nga xamante ne bii. ñoo leen tatagal. Mhm. li nga wax yëpp jaar nañ fa. et mhm. pourtant terewut dellu nañ ci échec. parent bi nga xamante ne bii tey moom dafa gis doomam. Mhm. mu jàpp ni moom lii du yoonam. mu choisiral doomam beneen kii. kooku tamit moom moo ko choisiral beneen mbir am na ñu bari tey ñoo xamante ni génn nañ ci daara yi. yi ngay wax ni jaar ci lii lépp ngay wax yelwaan def lépp. et pourtant tey ay nit ñu mag lañ ci réew mi. est-ce que ñooñu da nga leen a mën a tuddee ne dañoo échec. c'est-à-dire man li may wax man ci laa jaar dama judd ci ay waajur yoo xam ne. waaw ah, mais yow kenn nga lekk ci ñi ci jaar. waaw non dama lay <laughs> représenté woo ñu. non d'accord d'accord naa. <laughs> man dama ne dama jël samay responsabilité di wax di dox di joxe les vraies informations de est-ce que loolu mooy dëgg gu universel parce que yow loolu sa dëgg la. non dëgg sa gis-gis la sa benn vision nga am. tout à fait mais yoroo monopole vérité. dëgg lu baax li ma lay wax. waaw dama ne am réew. Mhm. une nation qui aspire réew moo xam ne da ngay aspirer développement. ku feebar mm, war a faju mm, ku xiif war a lekk soo juddoo war a am dëkkuwaay loolu bu ñu koy tabax du ñu xool lu parent bëgg te amalul njariñ réew mi fii nit ñi dañoo mës a topp li ñu bëgg mais li ñu bëgg de 1960 à nos jours su amaloon njariñ réew mi tey nit ñaa ngi ni ci mbedd mi di manifester kon du am dama ni la fi nga joxe allusion muy États-Unis effectivement mhm. moo ëpp ay drogué fii mais foofu doo juddu nekk drogué état bi dina la yiir yar la. Mm, jàngar la bàyyil ma ñëw bàyyil ma ñëw Amérique soo juddoo. Mm-hmm. doo nekk drogué ba ba ngay am fukki at ak juróom-ñett. Mm-hmm. réew mi da lay topp. Ah, dina la encadré non attends mooy am na at ak juróom-ñett. loolu mooy yow li nga xam s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît. non ah, non c'est que nag. non non euh, s'il vous plaît non <laughs> demuñu gànnaar waaye xam nañ ñu guddi la ñuy reer. waaw mais déglu yaa ngi dégg xam nga. demuñu gànnaar waaye xam nañ ñu guddi la ñuy reer. xam nga tey li tax sa débat bi di xumb te dagan mm-hmm. mooy bële da nga doon toog rek di wax fii nag da ngay toog nit ñi da ngay wax ñu wax yaa ngi dégg li ngay wax noonu ci Amérique hmm. yow wóor na ne amut hmm. gis nga ñoo xam ne bi ñoo amut kii nekk ay drogué c'est-à-dire cest à lii ñuy def nii waaw day day day prolonger débat bi jeexal sama temps te amalul njariñ askan bi xam nga lu tax tey soo toogoon <laughs> waa mais s'il vous plaît man s'il vous plaît parce que mënu toog dina déglu ngay wax loo mais déglu ma waa déglu ma xam naa xel ni lii amut waa déglu ma ko dafa am benn téer benn bundkat bu ne hmm. bul ma a gëm benn téere boo xam ne jàppkatu jàmm moo ko bind. Mhm. parce que ci biir téere bi du mas a wax ni moom jëf ju bon la daan def. Mhm. man ma dolli ci ne. bul ma a gëm téere boo xam ni jàmm ci boppam moo ko bind. Mhm. ndax ci biir téere bi du ma a bind ne gàtt xel moo ko jàppoon. day victimiser wu li ngeen di def nii c'est de la victimisation. Mm, xam na tax non mais bàyyi ma ñëw waaw bàyyi ma ñëw tey su ma demoon ci biir. ay tubaab su ma demoon ci ay yow yaa ñëw euh, yow yaa ma yow yaa ñëw présenté ñu ñaari xale nga jël kii def ko victime mais danga may bàyyi dama la bëgg wax ne la chemin boobu ngay wax. am na mm-hmm. ñoo xam ne ci lañ jaar. Mm-hmm. tey li ñu am lépp ci lañ ko amee am éducation boo xamante ni éducation bu extraordinaire lañ am na ñoo xam xale boobu ngay wax noonu am na ci ñoo xamante ni jaar nañ ci chemin boobu te demuñu fenn. dama la bëgg a xamal ne ñaar yëpp am na li may wax ak li nga bokkuñu niveau bu ñuy wax da nga may déglu ah, non de grâce da nga may ah, bàyyi yaa ngi ci kaw man maa ngi man maa ne ci suuf man maa ne ci suuf ah, da nga may déglu bu baax li ma la ñaari doomu aadama yi mm. man ci benn bi laa bokk waxu réew la ñuy wax waxu réew la ñuy man ak man ci benn boobu nga bokk laa waaw d'accord naa moo tax ñun dañoo war a dimbali réew mi ñun ñi nga xam ni hmm. dañoo jógee ci éducation traditionnelle de base hmm. mooy ñi juddu ñu dugal leen ci daara hmm. walla ñu jaar ci école arab walla ñu jaar ci bëkk néegu walla ñu jaar ci ci ndonga daara ñun ñun ñun waaw mais xoolal ñun ñun <laughs> ñooy élément ah. pièce maîtresse bi détruire réew mi. waaw léegi man comme man nag comme ñun ñun nag ñun nag léegi dama ko bëgg a indi. Sadio s'il vous plaît boo xamante ne bi jaarut école jaarut daara. saa dinaa ci ñëw dama lay sama classe gi nag saa waaw déglu ma dama lay léegi nag faram fàccee ma non saa j'aurais <laughs> bëgg naa émission bi neex te xoolal émission bi ah émission bi dafa mel ni JT waaw France ca TF1 ca en France c'est vous avez da ngeen am audience boo xam ne ah, vraiment les gens vous suivent partout dama bëgg li may wax xam ne am na sénégalais yoo ni arrangé na leen man li ma arrangé la man. Mm-hmm. dama judd ci réew mi gisuma sama bopp ci réew mi. Mm-hmm. di joxe information yi te du lu nit di dindi mën naa naqari nit ndax man li may wax lu ma dund la. Ah, dama ne mm-hmm. dañoo nekk ci inaptocratie les gens ils sont pas aptes ici nit ñi matuñu parce que xam nga lu tax matuñu. dañ yaa war a préparer ci loo xam ni xam-xam lay doon nekk mën-mën. wuruñu laa préparer ci loo xam ni ngëm-ngëm lay doon nekk looy toppee. loolu yow mën nga am interprétation bu la neex nga jëlee ko mais man dafa leer gis nga ci jamono bi fi toll Sanjogu. waaw soo amee chance su jël train jóge France jëm Angleterre train bi jaar ce qu'on appelle le tunnel sous la Manche ci suufu géej gi 53 kilomètres. saxaar gi jaar ci suuf su lu ñuy wooyee crêpe bleue fa la ñu bënn jël fer créé ci ay tunnel yi ñu bënd ko saxaar gi di fa jaar. anglais yi di def ne ñu def ñu dajale ci digg géej gi. soo jógee New York jëm New Jersey saxaar gi ci suuf géej gi lay jaar monde bi foofu la toll américains yi di defar ay capsule mhm. jaar la NASA jëm ci jaww ji di ko xotti di xool lan lañ mën a jëlee planète Mars pour indi nit dund ñetti téeméeri at loolu kenn du ko jàngale ci daara monde bi foofu la toll sëñ bi mhm. loolu la wax adduna bi koo ma mën a jox exemple ci moom fii rek nit am na ko ci beneen réew boo xam ne xamuñu sax yàlla mhm. koo ma wax mu tekki fii jàngul dara boo demee ci beneen réew nit tekki na fa la même chose te jàngul dara xamul yàlla loolu ay wax yi ay wax yi ko daanu ci sareet la il faut ñu jël réew mi au sérieux ñu teg les vrais les véritables problèmes ñu diagnostiqué ko defar doomu aadama yi pour réew mi bën a mën a dem ci mu jëm sinon yéen audience yi ngeen bëgg wala ni ngeen bëgg di ko waxee nit ñi di ko waxee ci seen plateau yi les vous créez des influenceurs et les influenceurs créent des suiveurs man je ne suis pas là pour ça. xooluma lu neex ay mbooloo wala lu naqari ma damba wala luy joxe vue luy defar réew mi te lii may wax képp koo xam ne concerne la nañu ñëw ñu ànd ñu foxat réew mi defar. d'accord voilà. Euh, euh, Cheikh. Mm-hmm. yow bi nga nekkee tout tànk dañ la dugal école nga bañ a jàng wala sa waajur yi dañ la dugal. daara lan fan lañ la ci dugal. une question damaa juddoo Sénégal. Mm. muy suñum réew. ci mm. biir Sénégal ma juddoo ci benn espace. ñu koy woowee Touba Mbacké. ma juddu fekk samay parents amuñu chance su dem école d'abord ma juddoo ci quartier wala ci gox boo xam ni sax daanaka école jegewu ma kooku su nekkee samay parent incité wuñ ma pour ma dem jàngi c'est pas de leur faute du Sénégal. la c'est la faute du Sénégal. Ah, ah, mooy li ma la c'est une question d'information. loolu la loolu laa bëgg laaj. c'est une question d'information de si. waa xaaral école dafa ah, amul woon. wala amuñu woon accès ci école. wala wala mënuñu la woon yóbbu ci ecole ñoom ñoo amul moyen pour yóbbu la école. moom laa de xam nga souvent Sénégal damay seetaan seen émission yi mu am solo lool mais parfois da nga gis journaliste bu posé ci question dem ci demin boo xam ni question bi su nekkee ki war a tontu am na information de base téléphone télé bi ci boppam du attan réponse bi te lool laa non télé bi du attan réponse bi loolu laa lay bajal dama ne la damaa juddoo sur le sur le tandis du territoire ci benn espace ma juddu fa ñu ni ma tu n'as pas le droit à l'éducation noonu la amee biir Touba mu ngi fay am ba tey noonu la amee Daaka ja noonu la amee dans le des sénégal yoo xam dañu leen a xañ seen àq ak seen yelleef pour du ñu jàng. d'accord buñ ci continuer seen télé bi du ko attan te loolu laa leen di bañ a. voilà bu ko comme attanu ko bàyyil euh, yaa ngi wax waxum États-Unis xale yeeg nangam ak nangam États-Unis defe naa ni banditisme rayé drogue ak yooyu foofu la ëppee ñun ñi di wax yow dem nañ fa gis nañ réalité yu ñuy dund foofu. Mm. am na luñ ci jot mooy li ma wax léegi benn mm-hmm. beneen bi. Euh, yow dañ la daan gis ngay nekk euh, États-Unis di dal ci kaw chef religieux yi rawatina waa Touba yi mm. say mbokk jóg mhm. tere la nga bañ mhm. lan moo dox ci diggante bi entre temps ba nga changé doxalin ba ñëw tax toog une question très pertinente <laughs> j'ai la chance dama am chance wala mal chance visiter fanweeri réew ak juróom-ñeent ci Afrique 39 pays d'Afrique dëkk bi ci mujj judd judd 2010 muy sud Soudan dem naa ca capitale ba Juba ma yàgg nag ci réew mu ñuy wax Tchad sillonné nooru Nigéria li commencé Kaduna Kano Zaria Jos ba protocole Gambaru dugg la Tchad dugg ci nooru bi mu nekk espace bi nga xam ne moo ëppoon jàmm ci biir jamono yi ñuy voyager la voie terrestre mooy communauté musulmane du Nigéria peut-être lu jege 80 millions nekk ci benn espace ñu koy woowee Jean Borno c'était dans les années 2000 2001 c'est la même chose li am Touba moo fa am ay nit ñoo xam dañuy judd ñu xirtal leen ci éducation traditionnelle réew ma ci affaire njàngum diine njàngum diine mais bi ñu demee ba 21e siècle avec l'explosion de la technologie maanaam ñu am accessibilité ci internet di xam ne adduna bi ndekete yàlla am na beneen yàpp bu dul géej di ko dañoo vulnérable cette vulnérabilité boobu nag ay saay-saay dañuy jaar en dessous di brandir le flambeau de l'espoir di leen dundal yaakaar mën naa nekk ay organisation terroriste mën naa nekk des politiques malhonnêtes menteurs politiciens opposants ou parti au pouvoir di jël xale yi di leen dóor ci leneen bi may ñaxtu di wax ci li ma gisul sama bopp ci réew mi Touba laa dëkk du ma tudd Koupentoum du ma tudd Kees dafa am lu ma échappé woon. li ma juddoo Sénégal li ma juddoo Sénégal juddoo tubaa gisuma sama bopp ci biir réew mi te Sénégal teg ci kaw Touba benn complot boo xam ni man mi fa juddoo di taalibe may subir le pot cassé loolu laa échappé woon may wax di ko teg ci turu diin ci sëriñ si effectivement parce que ñooy samay tuteur et su ma juddoo ñu ne may waroo jàngi ndax sëriñ bi bëgg fi école man automatiquement damay jàpp ne njabootu sëñ a xañ ma dem jàngi loolu la am amoon ci mais dafa am lu ma rattrapé bi ma gisee réewum Sénégal jaxasoo politique bi ubbeeku ma gis ay organisation yoo xam ni sorewuñu ak la ma gisoon Nigéria mu wóor ma nit ñi bis bu tàkkee na mu créé bukk Haram noonu lay créé fii man ne nag naa dem jubóog samay mbokk certes maa ngi xañ maa ngi xeex xañ gi ma xañ sama bopp ci réew mi te Touba laa doon tudd waaye nag damaa war a dem ànd ak Touba ndax mooy siiblu li nga dañ la wax loolu jamono ji nii mm. est-ce que amoo ci beneen gis-gis bu gën a ci li ngay wax mooy da doon nelaw ba koy yeewu ci université ko daal ñu ubbi ko fa loolu bu nelee sëriñ bi moo bañ euh, ñu jàng loolu di nga ko gëm mm. soxna si. damay rafetlu université wu Serigne Mountakha Mbacké bi mu def. te ñun ñëpp muy une fierté pour ñun. mais damaa jàpp ni Sénégal Touba dafa am lu muy représenté ci biir réew mi bañ nañ ko ba rapport bi génnee nit ñi ñuy wàññi ci gox bi ci gox yi Sénégal nee nañ millions yi ëpp fu ñu dajaloo biir Touba la tey Touba bokk na ci Sénégal fu ëpp ay jeunes ñu ëpp doole ci biir réew mi état xaaruñ ci état dara mais état tamit defalu leen dara. te bokk nañ ci ñi ëpp jom ci biir réew mi at boo demee ci secteur informel bi fii atelier terre boo dugg ci biir réew mi waa Touba nga fay fekk bu dee menuiserie maçonnerie électrification même ba ci Jakarta yi boo demee biir Afrique de l'Ouest capitale boo dem ci biir Afrique de l'Ouest liggéey boo fa gis Sénégal di fa liggéey waatu Touba la man bi ma nekkee ni yor ko yor fa atelier tailleur 1200 tailleur jaar nañ sama atelier pour ma jël leen ñenn ñi kon Touba xaaruñ ci état dara mais tey bu ñu leen jàppale woon mën nañoo développer bi mais gisuñ seen bopp ci réew mi. waaw mais gisuñu seen bopp ci réew mi. jeunesse Touba xam nga la xam nga la ko war a njëkk a nangu. Hmm. Euh, que yow sa vidéo yi nga doon def yëpp nga nangu publiquement ne da ngaa juum loolu nga war a njëkk a nangu euh, nga tàmbaliwaat parce que noo waat li ko dab mooy ñàkk xam moo ko moo ko dab moom dafa xamut. seex yow da ngaa xamutoon ba noppi di wax loolu mooy erreur nit balaa ngay wax da nga war a xam ba pare léegi yow est-ce que xam nga ne conduit nga ñu bari ci erreur gi nga nekkoon parce que yaa leen ci yóbbu ñëw lañ doon suivre. ci lan nga dugal leen ci ay njaaxum. mooy lan ci lan ci viwu activisme nga nekkoon noo xam nga Sanjogu. yow yaa nangu ne yow da ngaa juum Sanjogu moom moo ne de eh, eh, da bi la ci même lii bi la <laughs> am ah. mhm. <laughs> mhm. mhm. nga am vision. am say ngëm-ngëm. bi nga demee ba ngëm-ngëm yooyu nga bëgg koo doxal ci réew mi. Mhm. nga tànn capitaine Dieye. Mhm. capitaine Dieye. maanaam loolu mooy wane def nga xam réew mi quoi. grand dina ñëw sa question.

ci lu bare bare dama lay jox benn exemple dafa am ñaari xale yu góor yu jóge fii am 26 ans ñëw États-Unis dem ci benn restaurant di ut liggéey restaurant bi jël leen ñuy liggéey gaz bi explosé restaurant bi tàkk ñu jëlee ci ay gaañu gaañu ñoom ñaan ñëpp ñu dagg seen i tànk kenn ku ne ñu jox la 100 million dugal la ci avion indi la nga ñibbisi xale bi góor bi dëkk Géejawaay jël 100 millions dem jënd ci terrain bu baax tabax ci R plus 3 mettre ko en location appartement bu ne mu luyee ko 200 000 francs bi xaalis bi jeexee mu dem ci banque ak kayitu këram ñu lebal ko yeneen 100 millions mu ñëw ubbi kenkaayiri di jaay xale bi dëkk Touba dem jënd biir Daaru Xudoos zéro mat ak jumaa ji tabax ci R plus 3 munu ci am 75 000 francs par appartement mu jël kayitu këram dem ci banque di ci leb kayit ñu ne ko kër kayit kayitu kër gi nga fi indi amul valeur juridique te ñoom ñaar ñëpp ay citoyens sénégalais loolu complot bu Sénégal teg ci kaw Touba a daaneel fi nga dafa nekk lu sensible ci réew mi luñ ci wax dañ ko war a mu jeex dama ne la mm. nekkuma ni damaa jumoon de damaa def vidéo ni man Cheikh Thiam activiste bi daan wax ci Touba li tax gisuma sama bopp ci réew mi am ñoo xam ne niñ koy dégg neexu leen maa ngi jéggalu di jël njëggal li di ko teg ci loxo sama sëriñ sëriñ Abou Mbakem sëñ Abdou Fatah mu teg ci loxo sëñ Abdou Fatah mu teg ko ci loxo sëñ Abou mu teg ko ci loxo xali général de Mouride. man njab man dama lay wax rek dama lay wax man damaa damaa jégalu ba loo xamutoon ba noppi di wax. waaw mais mais loolu ça arrive à tout am lu la dab li nga wax fii nga xam ni ci te nga nekkoon ma ne la balaa ngay wax da ngaa war a xam. waaw non Sa Ndiogou fi ngay taxaw nii arrangé wul contenu wu émission. yow la arrangé man damaa bëgg ñu def émission de haute facture s'il vous monsieur. li may wax ni c'est vraiment daf ma ñor li ma lay wax nii. Cheikh yow fi mu lii moo tax xam nga. Cheikh lan mooy sa problème hmm. di nga gën a réer waaw d'accord naa xam nga la moo la moo tax mhm. euh, maanaam da ngaa jàpp ni xam nga te xamoo loolu mooy loolu mooy loolu mooy erreur bi gën a rëy <laughs> amul problème non c'est xam nga xam nga tey Omar dafa génnewaat ke benn affaire xam nga yow c'est que ce mhm. choix capitaine Dieye xam nga loolu erreur gënu koo rëy loolu grand bi la dinaa la tontu bàyyil ma tontu la yow ba pare bàyyil ma tontu la ba pare xam nga su ma daanee loolu may xamee il faut bu defaat beneen may xool bi may ñëw bi may ñëw di wàcc aéroport waaw y a trois cent cinquante jeunes waaw yoo xam ne ñoo ma gàttandu aéroport mm-hmm. c'est du jamais vu ci activiste mm-hmm. te ci jeunes yëpp biir Touba la ñu juddoo la ñu dëkk mm-hmm. di liggéey ci biir Sénégal mais ñëw defal seen bopp mooy yi ñëw teertuma aéroport bërki démb laa jógee Kazu Rajab bi ma demee sëriñ sëriñ yi ñi nga xam ne ñoom la Kazu Rajab gi concerné li muy xat-xat-xat kenn ku ci nekk wéet naag man ñu toog waxtaan njabootu sëñ Tuubaa gi am na fu seen maam jaaroon ak tubaab bi fan la mujjee jéggal leen ba bind ci xasida goo xam ni te instant bi nii li ma junj ci nooru Nigéria bi mhm. muy cellule dormante boobu noonu ak frustration bi nga xam ni conjoncture économique bu actuelle bu Touba mu ngi koy proposé ak jeunesse boobu mhm. c'est une bombe sociale damaa war a bokk ci li koy désamorcer kon mënu leen maa jaxasee waa Touba grand su ma ñëwee ci yow non eh, bu dëpp carte gi d'accord léegi su ma ñëwee ci yow su ma ñëwee ci léegi génn Touba léegi ñaan naa la ñaan naa la ko léegi Cheikh yow Cheikh Cheikh waaye ba nga dëpp carte gi Cheikh Cheikh xulul xulul jégalu nga comme jégalu nga Touba comme jégalu waaw jégalu naa ko nañ su ma ñëwee ci capitaine Dieye <laughs> man comprendre naa ni ngay waxee yow sax sa bopp taxulaa jóg ah. mais pour sénégalais yu bare <laughs> dinañ ñemee Cheikh Thiam ak niveau bi mu nekk ndax dañ ma koy wax pourquoi may ànd ak capitaine Dieye c'est normal xam nga lu tax hmm. li politique yu Sénégal classique bi gën a réussir hmm. mooy ils nous ont mis dans un bulle dañu dugal foo xam ne ñun ñun ñuy dund dund gu gën ci réew mi bokk rang social hmm. li ñu njëkk a def ci ñun mooy ñàkk gëm suñu bopp ba képp ku génn ci ñun di woote ñun ñoo lay njëkk a xeeb maanaam réaction nga ma jox mais yow taxu la taxulaa jóg ñi nga xam ne bu élection amoon tey ñoom ñoo koy jiite juru juróom ñi kenn ku ci nekk wax na ma ak yow lu ëpp une ci téléphone ñi am na ci ñoo xam ne sax déplacé wu nañu fii ñëw fekk si man yoro ko pour man ak ñoom ànduma ak ñoom parce xam nga lu tax kenn amu ci information yi man a décanter réew mi ci situation bi mu nekk capitaine Dièye ñu xam ko ak ñu bañ ko xam maa moom dañuy wu ci lu bari ci loo xam ne moo téye réew mi ma xam ni kii gëm ko xam na ko loolu tax ma ànd ak moom comme loolu loolu ngeen gis loolu loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy la lii dal et euh, du du ma utiliser sax yenn baat yi. Hmm. parce que j'ai ko de respect pour toi. tout à ah, fait mooy yow. Hmm. daa am ci situation boo nekkoon. Hmm. yàlla dogal la nga def aventure dem ci leneen. maanaam da nga ne bi ngay jóge fii xamoo dara. maanaam li la waroon tàggatee des na yu bari wax nga ko. mais yow ku lay dégg xam ne danga nga lu bari xam nga ko ci tukki bi nga tukki. ku dégg ni ngay waxee tubaab ak ni ngay wax am na loo xam. mais est-ce que Cheikh yow boo demoo ba benn jamono nga benn complexe. d'infériorité booy nourrir. Mm-hmm. wala nga xaw a wu. Mm-hmm. quelque part est-ce que nekkul ni loolu moo la sonal ba nga bëgg a rëñee say origine c'est important li nga wax. Ah. xam nga Senghor daf ne woon ouverture en renseignement et ouverture su nekkee sa existe bu dee noonu laa ko waxee. Ah, ah. oui dama décomplexé xam nga lu tax damay dox bés New York ba mu jàgg ma fakkastalu daanu bi ma daanoo matul deux minutes délégation ñëw tiim ma ma xool muy ambulance ak représentant wu maire New York. ak waa service d'hygiène corps yi nga xam ne ñoo jëm ci lépp loo xam ne dañ ko fay teg pour mu dox ci àq ak yelleefu doomu adama ñu teg ma ci oto yóbbu ma biir hôpital li war ci man ñu def ko pendant ñetti ayubés ma tëdd ci hôpital bi ma paree ñu laaj ma ndax am nga lu la yóbbu ma ni déedéet ñu jël oto ci biir hôpital bi boo xam ne wanewut lenn mbargan mandarga ni ci hôpital la jóge yóbbu ma sama kër oui dama dama dama complexé bu fekkente ni Sénégal ñu ngi toll ci moment boo xam ni nee nañ lépp lu am yàllaa ko def taux taux de mort mort deewu xale buy doog a juddu Sénégal ci junni xale yuy juddu ci at mi nga am ci peut-être cent et quelques yoo xam ne dañuy faatu ci moment boo xam ne Amérique ñu ngi toll ci ñett ci junni boo jël ñett ñoo ciy dee dama am complexe dama am complex ci ku ku ëmb biir Amérique dee ñu xam ni yow ëmb nga état bi dalay topp topp xale bi di la aar di def ci yow li war ba ba non mais damaa complexé effectivement damaa complexé bu dee loolu moom mooy complexé damaa complexé waaw bu dee loolu mooy complexé grand je suis vraiment complexé. saa yoo leen ko <laughs> ko bëggee grand. li mu wax nii bu dee loolu la moom. Hmm. vraiment dégg nga nag sant yàlla. loolu aussi bëgg na réew mi egg foofu aussi vraiment. Mm-hmm. ay man anu anu ah, ah. waaw non du question sax mais mais Cheikh ñu ngi lay gërëm bu baax di la di la sant émission bi neex na waa ah. wax na fi ay wax ci benn wax wax na fi ñëwaat du ñëwaat dina ñëwaat dina ñëwaat man xam naa foofu day ñëwaat day ñëwaat il faut mu ñëwaat ñu waxtaan dégg nga mais di kontaan ci yow bu baax a baax bu dee am naa conseil bu mu lay jox mm-hmm. li nga wax nii yëpp mm-hmm. am na loo xam ne amul ci réew mi ñun moom li ñuy dund. Mhm. leneen la mais da nga waroon def comme seeneen moodu moodu yi. Mhm. maanaam yi ñu gis. Mhm. ñoom de solution bi ñuy apporter mooy. jëlee ay ambulance ut ay partenaire ut ay lépp pour régler sa problème. mais ah. li fi li nga wax moo fi ne de. joxe defoo dara pour dindi ko aussi. tout à fait xam nga xam nga fi nga fi ngay dugg. non non je suis damay daaneel mais xam nga ça dépend li nga ma wax. li li nga ma wax su ma ko traduire ci sama xel peut-être li nga bëggoon ma wane ko mooy lu may def ci social. sa hmm. dépend réussite tukki dafa bari ay interprétation yow definition bi nga am ci réussite bi ak bi mam du benn le Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa nekk ci crise et solution wu crise bi ci boppam dafa nekk ci crise mooy ignorance voilà il faut nettoyer ce pays qui est inondé de l'ignorance il faut ñu defar ay nit balaa ñuy am ay ambulance li mu wax ni xam nga bi mooy lan merci say xam nga Cheikh bu dee wax ni mooy lan ñëw naa waaye indiwuma dara bu kenn ñëw la wax fi mu toll du ma la wax kañ la mais dinaa la woo ci focus dégg yow am ngeen temps amul problème jël ambassadeur de la jeunesse sénégalaise ñu ngi lay jaajëfal bu baax waxtaan wi am na solo vraiment jëlee nañ ci njariñ lu bari génn na fi macha allah merci beaucoup ci disponibilité bi